ayca eh kaay wax li nga bëgg ayca Kéba pass pass pass waaw waaw ndeysaan Boy Diop numéro 2 bi noonu waaw waaw lu eh, waaw waaw ndànk numéro 2 ñëwal taxaw. ndigal Dedy Guissé Dedy Guissé Diop xam nga ni namoon nan la Dedy Guissé ah Dedy Guissé Diop xam nga nit na moom nan la ko ñu gisee digal Cheikh digal doolay Baay Faal Cheikh digal ko jëf digal Dale Baye Fall Cheikh Ndigal Boy Diop Ndigal Cheikh Ndigal après ñu dem Dale Baye Fall Cheikh Ndigal Dame Todi Dañu Ah waay ah lii dafa amul entraînement mënoo ko eh Thiès ah Idy a naa la gaynde gi. ndax tey. waaw tey gi nii rek la ñëwee. Bébé Diop ñëw tekk ak tey. waa yëmbal ma. waa benn barak. waa Kër Masar waa télé bu xonk. ma ànd ak sama turandoo ànd ak samay kotsu ak samay mbokk. yeb ma bu baax a baax a baax a baax a baax nag. ndam rek incha allahu rabbi si kàttanu yàlla. waaw Sadio ndaanaan la. mais ndaanaan dafa am mais plus ndaanaan dafa am. plus fort tubaab moo yor plus fort man maay plus fort. Boy Diop 2 c'est un lutteur plus fort que toutes les générations. tous les plans je suis prêt tous les plans tous les mbot tous les caxabal tous les xatet je suis prêt tout tout. si kanam dina lépp caméra bi ni ma daw topp ma. saa jël ma baaxul bu baax baaxee nii original baaxee nii. baaxul ki ma baax. ki ma baax. dina leer si kanam dina leer si kanam. waaw fay naa la. yaa ngi nii rek. tur bi tur bi Sa Thiès 2. waaw école du Cheikh Mbaba. Bébé Diop. Boy Diop. kooku dama koy daan. nee na yow li la bàyyi si lamb bi xam nga la arbitre siffle. barke maam Cheikh Rafal day waxalu ko day soob ñun ay doom bawul lañu daggaluñu loolu barke maam Cheikh Rafal. bu dee xeex moo la mën bu dee bëri moo la mën nee lépp loo def nga daanu. waaw ba bés xaaral géew bi xaaral géew bi barke yàlla dinaa ko duma daan ko. duma daan ko duma moromam. dina leer si kanam barke maam Cheikh Rafal Boy Diop Rokoy a Sathies Boy a Sathies Boy a Sathies ñaari xale yaa noonu ci géew gi nekk ñaari espoir nekk ñaari ndaanaan nekk ñaar ñoo xam ne ñaar ñu lamb yaakaar la nekk ñaar ñoo xam ne ñaar lamb ñu lamb war a bàyyi xel saan Boy Diop ak Sa Thiès Boy Diop mooy njool mi Sa Thiès mooy ndaamali te dinaa ziar naa la eh, ndeysaan Boy Diop Sa Thiès Boy Diop a ngi noonu kookoy Boy Diop moo bàyyeekoo yëmbal mare Sa Thiès numéro 2 ma bàyyi ko Doudou Baka Sarr nekk ñaari espoir du mooy troisième combat am saan Boy Diop nte Boy Diop a Sa Thiès Boy Diop nekk xale xam ne Malika bàyyi ko barak wala bëri nga xam ne moo bàyyi ko Grand nekk ñaari espoir nekk ñaari ndaanaan saan ñaar xale ngi noonu nekk quatrième combat arbitre baa ngi koy li lamb nangu at li lamb saan oh Sa Thiès saan Sa Thiès at jiili la Sa Thiès Saan ñaari xale yaa ngi noonu Saan ñaari xale yaa ngi noonu Diop ay waay Mbaye Diop a ngi doon ci géew gi jili SBT la jili maa ngi lay fay naka tey waaw sant yàlla rek jili gaay nam nañ la ah raw de koon lafu lafu la la jili loo xam si ñaari xale yi Boy Diop ak Boy Diop ak Sa dëgg xamuma leen kii mooy Boy Diop njool mi mooy Boy Diop kene Boy Diop waaw bàyyi ko yëmbal ma ne kene mooy Sa Thiès Baka Sarr Boy mi da njool la moom te taay bi mu am bu weexee tuuti ndaamay génn làmb ji ku ko jàppale ci làmb mu dem waaye Sa Thiès mi liggéey na moom it ndax du ndaama te vraiment boo xoolee état de forme bi mu indi nga xam ni ñaari xale lañ te bëre xale ar bi na prib ngeen songo dóorante xeex yanu dóor ci suuf kenn du joxe drapeau bi ndax poussière bu bari sama tante ak sama yaay <laughs> ñu ngi fa sama tante ngi fa sama yaay ngi fa <laughs> ndeysaan gën a sopp koo sopp sopp na la incha allah defal loolu. kay jiili wasaare sama doom yaay. Sane arbi sifflé na Sane ñaari xale yaa ngi noonu si géew gi. Sa Thiès ak Boy Diop. Sane ndax ñaari xale yaa ngi noonu si ne mu ñaa position. Sa Thiès moo yor ngeen bulu ñuul li waaye Boy Diop moo yor ngeen bulu buleel li mooy njool mi Boy Diop daa waaj ba toll ak moom. waaye sama idole grand la moom kenn du moom saan <laughs> saan Bo Diop ak Sa Thiès ñaari xale yaa ngi si saan xale yaa ngi si géew gi mi Sa Thiès moo ndamali nekk combat espoir nekk combat ndanan nekk combat jànq ndax nga dégg li jiili wax kii ndaama la lu liggéey la waaye Boy Diop ndool la boo xam ne bu ko ay mbokkam jàppalee mun na ub làmb kon gars yi nañ bàyyi xel loolu jàppale xale yi ndax làmb gox koy def làmb koñ koy def saan eh Sa Thiès na Boy Diop replié Sa Thiès daa remise Boy Diop replié Boy Diop à def tekk di léew too fermé garde bi si kaw waaye tànk baa ngi dox si suuf waaye nag ni mu taxawee bu ginnaaw xaw naa ràcc sori ndax wóor na dina leer ci kanam Boy Diop a Sa Thiès ki tuddee boppam Boy Diop bu yembal mare dam ne koy gidi fal ay balde ay ki tuddee boppam Sa Thiès rak Balla ñoom ñaar ñëpp seeni turandoo ay ndaanan lañ yàgg nañoo dégg daali fii si bi ndax soo xoolee Sa Thiès di kii ki mu tuddee boppam digganteem ak Boy Ngaay nga xool Boy Diop digganteem ak professeur Man digganteem ak Tafaleer kon ñoom ñaar ñëpp ki tuddee seeni bopp ay ndaanaan lañ ay sam arbitre sifflé waat na arbitre sifflé waat na Boy Diop Sa Thiès Sa nga dox si kawam ndànk-ndànk Boy Diop fayu na Boy Diop Sa Thiès espoir waxtaan nuyu mbokk internet yi eh mais mais boo lu mu def nii daa sulli wax ma wax naa kaa gis si PAM loolu laay gaynde waay boo ñëw waay da kaa sulli boobu daw def rotation ko woy percune percune ngi noonu da kaa sama xel daa dem ci PAM loolu laay gaynde sama xel daa dem ci PAM loolu laay gaynde waaye ak day yegg boo si ne da nga dem si ginnaaw day war ndomba taxaw déglu ko da kaa xaar. ndeysaan Boy Diop Boy ak Sa Thiès saa espoir yaa ngi si géew gi Boy Diop jàpp na si Senghor sa jàpp si dënnu ngemb la waaye Sa Thiès benn ngemb rek la jàpp ndax benn loxo moo jàpp Boy Diop songo na loxo ba kaw da koy boo jëm sama oh mais jili loo si xale boo jëm ndax naan la de lu ma la waxoon léegi man damaa ragal mbër mu indi mbooloo te boo gisee mbooloo mi mu indi moo lay wan ni topp ñu ko ci falaa falaa rek am na lu mu def ba tax mu indi mbooloo mi. waaw loolu loolu loolu dafa jar a bàyyi xel man. loolu laa ragal ci mbër mbër saa yu ma ko gisee mu mobilisé damay xam ni mbooloo mi mu indi wan na leen mbaax wan na leen yar war na leen teggit war na leen mën a bëree ba tax ñu ñëw. waaw mbër mu ci melul noonu nag booy bëre ñaari nit a lay topp benn kalandoo kalandoo bi sax du fees waaw mu ngi noonu yaag sa kot sa ci lekk ak ñaar ñi la séq jeex. kon mbër mu war a toogee ci ci koñ. mbër dafa war a woyof warul yëg sixte dara waru fëgg koo romb jox ko cër bi mu moom muy xale bu ndaw muy ku gën a ndaw a ndaw muy mag muy ñëpp mbër bu dëkk ci koñ warul xulóog waa koñ ba mbër mu dëkk ci koñ warul xeex ak waa koñ ba daa war di di boole ko neex ak lu ko naqari ndax te bu ëllëgee boo doonee champion sa waa koñ la ñuy laaj diw mi nan la mel ñëpp ni nga mel nag moom la ñuy wax. message bi nga mbër yëpp la. képp kuy mbër. waroo yëg moo Modou Lo nit la soxla ay mbooloo. bala gay mbooloo la soxla saa suñu sañoon seen i day gën di yokk kon nag loolu boo yegsee fii defar rek mu jëm ci kanam. maa eh. saan po lan jili li mu wax rafet na lancé na message boo xam ne pour jeunesse bila la lancé na message xam ne pour njabootu làmb xale yi nekk si làmb kon mbër daa war a oyof Boy Diop a Siteu jàppante na ñoom ñaar waaye nag sëg bu yàgg arrangé njool Boy Diop sëg bu yàgg arrangé njool ñu xool Boy Diop Boy Diop Boy Diop ak Sa Thiès Boy Diop ak Sa nar ni Boy Diop ak Sa Thiès ñaari espoir lañ mais Boy Diop Boy mu jàpp baax na waaye Sa Thiès tamit fi mu jàpp baax na Boy Diop a kookoy Boy Diop mooy njool mi Sa Thiès ñoon ginnaaw Sa Thiès nekk nii Boy Diop a nekk nii daan Boy Diop ak Sa Thiès xale yi ñu ànd bëre nañ sànq bëre bu neex saan nekk ñaari espoir saan Boy Diop génne na loxo ba waaye dugalaat na loxo ba sa biir dugalaat na loxo sa biir waaye Sa Thiès amul fu mu jàpp Boy Diop songal na bës kaw eh ko eh Boy Diop ko laa ilaa xoolal xale ba noo indi xale ba noo indi buur jaari baa ngi cat baa ngi noonu bu njoolu waxee ndaa may génn ndaa boo kokoy si Boy Diop Boy Diop kaay Boy Diop kaay kaay kaay Boy Diop kaay na 6 points nee na bi ma troisième combat. sport fair play fair play saan.